petit Serigne Saliou Serigne Béthio jaamu te di khalifa am bi di Serigne Saliou ndigal mu yag fi lol te ànd ak wér di ñaan tamit suñu gën gu tedd gu mag gi di Serigne Mountakha Mbacké yalla na fi yag lol te ànd ak wér ban na li mu eh, yéene liggéeyal Serigne Touba mu mo matal ko di ñaan Serigne Cheikh Ahmadou Mbacké mu Serigne mu Serigne Saliou mu yag fi lol te ànd ak wér waaw sëñ Ndong moom ne day mel ni liggéey bii liggéey bu ñu miin la te it euh, sëñ Mbacke yu fay dafa delloo buum ca booy boy ga muy lan fii biñ fii njëkk ñëw novembre 2006 la woon mel ni mooy tegum xeer bu njëkk jumaa euh, jumaay Masaalikul Jinaan gii bañ bañ fii ñëw sëñ Saliou moo ko moo yebaloon moom sëñ Mbacke yu fay ni ko boo demee ti Cheikh Béthio na nga ko wax benn yi nga xam ne moo jëm ci mbooloo mi euh, mu sas nañ ko ko moom moo ko fay def kon keroog ba ñu ñëwee Euh, ndigal lool moo ñu moo ñu moo ñu moo ñu fi indi woon ba ñuy defaat inauguration bi euh, septembre 2019 bañ fi ñëwee tamit ànd ak euh, sëñ Saliou ndigal dem ci sëñ Mbacke yu fay daf ko ni ndigal lool leen lañ sëñ Saliou joxoon laaj tollanti tey jii nag ñuy teg xeer institut islamique bi mu ñëw doxal ay tànkam ñëw ba ci cant ga ni lépp luñ ñu benn bernde jël na ko teg ci kaw ci loxo yi sëñ Saliou ndigal loolu nag muy sas wu rëy ba tax na liggéey bi it ba mu ba mu egsee ci la kuréel gi daal di euh, ci lañ ci lañ ci lañ ci lañ daal di séddale waañ yi waañ bu ci ne am ay waañ yoo xam ni maanaam dañ koo dañ koo tënki ay zone nga xam ni yow da ngay da ngay daal di bot yeneen waañ fi ne nii noonu lañ ko tëralee ba tax na fi mu ne nii fii ngeen ñëw ni nag mooy waañu université nga xam ne dañoo seq liggéey bi ak yeneen waañ yu demee ni ko waañu Louga Ndar Kébémer waañu ñu Grand Yoff waa ñu Bambey wa euh, waa waañu Wakaam maanaam bëri na waa ñëpp ñoo tegaloo ñëw fii ñu am nag métti métti kenn bu neex mooy suñu euh, mbokki taalibe bi murid di dañoo ñëw ni kat liggéey bi dañ koo fas yéene ànd ak yéen ñu ñoom tamit bi ñu ñëwee tamit ñu xajal leen ci ndax booy seet fédération toogkat ak euh, daayira toogkat yëpp yu yoonu murid daanaka mën naa ni ñu ngi fi. di ñu ànd ndigalu sunu sëriñ sëriñ Saliou Thioune ndigal waañ bi nag mooy waañ mooy ñaari waañ yu mag yi nga xam ni lépp ci ndigalu sëriñ mbàkk yu fay alaaju mbàkk yu fay mu jël lépp teg ci loxo sëriñ Saliou Thioune ndigal ñu ànd koog fédération daayira yi nekk fii yëpp war a doxal waañ bi waañ bi nag wax dëgg yàlla tuwaarkàlla dembu togg nañu reer tay ñi ngi ni di tal ay añ añ nak wax deug yalla njort nañu ni dina ko matte seuk wax dëgg yàlla daanaka fi muy wax ak yow ni daanaka soo am ñoo rek mo leen dessé dina dina teel pare incha allah nañu ni bu ñu ba pare ñepp la ñaan ñepp tok añ bu nexé Serigne Saliou. mu melni ni mom si si nan ngeen ko tanké ci walu xewali ay agn la ak ay reer wala. ñetti fan lay doon ñetti fan yoo xam ne bu ñu xëyee dañuy joxe ndékki heure añ bu jotee dinañ joxe añ heure reer bu jotee dinañ joxe reer. waaye di ñaanal sunu sëriñ sëriñ yu Ndigal mu yàgg fi lool te wér ñun ñooy waa Touba jant max waa daaray soxna yi ñu ñëw rek ànd ak sëñ saal mbég mi ak liggéey bi di ki sant bu baax sëriñ Touba nag. ndax ku gis bis bi ni mu demee xam ne Serigne Touba kat nangu na ko ndax biñ tolloo ki julli fajar gis ngeen xéewal yi wàcc ànd ak ngan gi. kon xam nañ ñu xéewal yi wàcc na mooy pajuk aajo gi ñuy sant baax ki sëñ Saliou Ndigal mi ñu jël liggéey bi dénk ko ko mu doxe ko ni mu ko doxee ànd kook jigéen ñi ak góor ñi ñëpp a ngi fi tey képp ku yaakaar Cheikh Béthio yaa ngi ci waañ wi tey ànd kook Serigne Saliou Ndigal ci mbég nak akuk cant tey ñaan sëñ Mountakha Mbacké yàgg fi lool te wér ak Cheikh Ahmadou Mbacké Saliou Serigne Cheikh mu yàgg fi lool te wér di bég lool di sant Serigne Saliou mel ni na ndax ñoo xam ne ñu ngi sóor tey yan palaa ngi sóor def nañu ay ceebu ndabal def nañu ay laaxu araw def nañu ay ceebu ganaar dañ ay ceebu ganaar xale yitam ñu ci kafe gi ñii ñu ngi ci meew mi ba tey ñoo ngi joxe ndékki itam jeexagul. waaw mu rëy si ñun lool ndax boo xoolee waañ bi yëpp ay ndaw rek fi nekk euh, kenn ku ci amul ku ci am 40 ans yu mat kon ñun mel ni euh, sëñ bi dimbale nañu waaw moo tax mbégte googu daal la ñuy dund. waaw ba xamuñu fu ñu yem ak fu ñu xamuñu ko waaw moo tax daal lépp luñ ci def rek waaw des na. waaw te buñ ko doon def ba weer tamit man gëm naa ne mbooloo mi du tasaaroo ndax kenn ku si nekk da nga doon ñeewantal pour liggéeyal Cheikhul Khadim waaw ndax sëñ bi moom ni comme ni ko mag ñi di waxee liggéey bëgg koo liggéeyal am na waaye sëñ bi liggéey loola moo jafe waaye ñun mel ni ñun bokk na ci tànn fi sëriñ bi waaw ndax ay ndaw yoo xamante ne suñ borom dimbale la ngay liggéeyal sëriñ Touba si jamono ji képp ku ci yàlla dimbale ba nga bokk yi ñu sélectionné rek neel alhamdulilah waaw jërëjëf jëwriñ ñu ngi laaj rek yëg-yëg bi ngeen am ci sëriñ bi ñëw gën a ñu fii si Masaalikul jënam sëñ Xuddoos ñu siyaaraat rek di delloowaat euh, nuyo bi sëñ mu Muntaxa mi nga xam ni mooy borom taar beeg mbég mi di xam ni moom danoo delloowaat mbuum fa mu nekkoon rek waaw mbégte mi moom du jeex mukk barke sëñ Xadim moom nii rek lay demee saasu ne waaw ñun yittee sëñ bi rek ñu fi bàyyi heure bu ko soxlaa rek ak nam ko bëggee fa ko bëggee rek noonu lañ lañ ko koy defalee waaw muy lii nag suñu wàll ci liggéey bi waaw di cër ci ñun wax dëgg yaal ñu nang ko te ci ak mbék ak sawarté nak lool ci ak suñu jëwrin Mbaye Wilane mu dénk ñu jëwrin Moussa Cissé mi ñu ci ak jëwrin Cheikh Ndiaye ak mboolem rek wa fédération daïra parcelles yi. khalifa bi rek ñu koy ñaanal mu yàgg jamono mu ndoxa waaw di ñaanal aussi vraiment mbak yu fay ah waaw réussir na lu le Serigne Touba bëggoon waxon na dina dal ci nagaru samp fi lo xam fang lay def tay ji sous sous la conduite de de de de Serigne Mbacke waaw loolu réalisé nañ ko ñun ñi ñëpp sagu nañ ci ñun murit am na nañu tiitër l'islam amaat na ndam barke Serigne Bamba waaw loolu nag dama sa question dama si pëdaxlu rek neex naa tontu ndax lu ma xam la man maa ngi tudd Ahmed Diop dëkk Thiès euh, yore waañ ba dëkk foofu ren jii waañ yi ko tënkee danoo boole pôle yi maanaam waañ mu nekk pôle la ndax kuréel bi ñun suñu kuréel bi ay ay ay pôle la am na lu tolloog ñaar fukki waañ ak juróom-ñett kenn ku ne mën ngaa taal fu mu toll bu doon taal ñaari junni man a loolu daf ñoo yomb kenn ku ne mën nga ko taal léegi ñu jël pool bu nekk ñu boole kook ñeenti pool bii Thiès la ñu boole Sikaab Janatu Maxwaa ak Ngéejaan mooy zone Mboro bii Abass Marana moom mooy parcelle boole nañ ko euh, euh, yeneen yeneen yeneen pôle euh, pour ñu pour pour ñu def loolu waaw loolu nag ñun sunu tawféex la ndax ñun kat adduna bi li muy rëy rëy rëy lislaam li muy rëy rëy rëy lenn képp mun wér ni ni sunu borom moom moom moom naxunju si te digal na si ba waat si mooy la in sakartum la azidanakum nee na ku sant ma dooli la ndoo lent yaa ngi nii waaw ndax démb la ñu àndoon ak sëñ Tuubaa démb ñoo àndoon ak moom tey jii waaye xam nga ne yokku nañu tey ndaw yi riir nañu uti ko mag ñu riir nañu uti ko ku ne riir na daw daw uti ko